déclaration patrimoine yéen a kaay gi neen ni ki démb ci réunion bi nga xam ne Ousmane Sonko woote woon na ko ci mairie bu Ziguinchor mbooleem conseil yi nga xam ne ñoo fa nekkoon dogal yi Ousmane Sonko jël yépp la ñu voté maanaam ñëpp ci ànd ñi nga xam ne ñoo bokk ci pouvoir beek ñi bokk ci ku jigeek ñi bokk ci yeneen parti yi maanaam ci d'accord Ousmane Sonko ni ki démb daan nay wax conseil lu mel limité wax na leen lu leer naññe nee na leen nag ñëw tey bu ëllëgee a kaay gi di vox populi xëy duñu xibaar naan ñu yu bare bari ak bayal yu bare bari ak xàll yu bare bari yoo xam ko soppar ñi li nga xam ne mooy seeni tur da ngénte waat am yeneen tur yoo xam ne moom la leen tuddee am na ci boo xam ne rue Union africaine la ko ak yeneen ak yeneen yéen a kaay gi dalee se ko xëy di ñu xibaar naan ñu Ahmed Aïdara niki démb la ñu ko doon installé ci ville bu Guédiawaye waaye nag Ahmed Aïdara moome daal niki démb nekkoon na si ay jafe-jafe yu métte métti te soo moytuwulee ñi nga xam ne ñooy adjoint yi ak secrétaire la ñuy fare ndax ñoo ëpp ay conseil yéen a kaay gi de l'observateur xëy jël kàddu gi nee na Ahmed Aïdara commencé ak i jafe-jafe kaay gi di réew mi quotidien nee na en tout cas li am ba de sàll ni ki démb ca géej waaye mbir mi pëccoxoo woon na lool comme sabar gu tas maanaam saagante xuloo gi mel ni tuleeg male Ahmed Aïdara ni ki démb yàkk na musiba ak nga xam ki nga xam ne mooy ay conseil journal bi nee ñaari million nga akub terrain la Aliou Sall jël jox ko ay conseil ngir ñu mën a xañ ki nga xam ne mooy Ahmed Aïdara maanaam nag adjoint au maire yéene kaay gi de le quotidien xëy dañu xibaar naan ñu ni ki démb nag tës moo am fi nga xam ne mooy waaye Cheikh Sarr bu Benno Bokk Yaakaar la ñu tabb mu nekk premier adjoint yéen a kaay gi de nee na Ahmed Aïdara ndax ñi nga xam ne ñooy ay conseil bokk ci wàllu Sénégal nee ma PDS ak gëm sa bopp bukaan gii dani ak ñeneen parti yi ñooñee nag ci boppam ñoo dem fekki Benno Bokk Yaakaar Abdoulaye Wade ni ki démb dafa mer ba maarale tale Abdoulaye Wade bi mu déggee ne conseil yi bokk ci wàllu dañoo dem ànd ak Bokk Yaakaar Abdoulaye Wade dafa yable mooy ndaw ngir nag ñu lijjanti lool doole yéene kaay gi di réew mi quotidien nee na Barthélemy Dias ni ki démb daan koy installé ci ville bu Ndakaaru nee nag pare na ngir liggéey ak état central waaye nag liggéey boo xam ne ci sincérité rek lay ajo ngir nag intérêt askan wi nga xam ne ñoo yeewoo Ndakaaru moom Barthélemy Dias ci journal bi de l'Observateur ak enquête ak Vox Populi daan wax ne nekkul nag am maire boo xam ne dafa ñëw daal ngir nag combat ngir xeex ak ñi nga xam na ñooy lal ci xam ne ñooy gaare ay oto foo xam ne wuruñ ko faa gaare bi nga xam ne moo am Ndakaaru képp koo xam ne yaa ngi ci pay boo ne Barthélémy Dias ni ñi nga xam ne nag ñooy marchand ambulant ay cantine leen di wutal a kaay gi di la ñu tabbu ni ki démb maire honoraire yéen a kaay xëy na bind ci xëtam mu njëkk ne la jeu trouble de Bougane Bougane Gueye jamono ji nag ay mbiram jaaxal nañu bare bare ndax na conseil yi nga xamante ne ñoo bokk gëm sa bopp te nekkoon ci bu Pikine te dem ànd benn bokk yaakaar ñoom daawur ñaa njaay nee nañu nag Bougane Gueye Dany moo leen santoona ngir ñu dem benn bokk yaakaar négocier fa li nga xam ne mooy ay poste yéen kaay gi de Les Échos nee yi nga xam ne moom la ñu génn ñi nga xam ne ñooy waa parti socialiste ñoom ñoo ci gën a perte moo tax tey jii danañu amal réunion boo xam ne ndëpp la yéen kaay réew mi ko di jee nee na France ab dogal jël mboole militaire yi nga xam ne moom la ñu amee ca diwaanu Mali waaye nag bu ñu jógee Mali Abdourahmane Ouattara ànduñu benn yoon ci France jël seeni militaire ca diwaanu Mali yéenekaay gi di Walf Fadjri nee na njiitu mi di président Macky Sall ni ki démb ci sommet bi wax na nag ñi nga xam ne ñuy waa Europe maanaam ay dëgg ma L'Observateur ne Macky am na juróom-ñetti proposition yoo xam ne defal na ko waa Europe ngir nag ak lëkkaloo gu bees goo xam ne kenn ku nekk daf ci mën gis boppam maanaam gagnant-gagnant yéenekaay gi di gi nga xam ne la ñu